coow lii mi ngi wulee ñaay ci biir làmb ji gannaaw lii nga xamante ni moom mooy Covid coronavirus ak troisième vague bii di Delta li muy yóbbu ci doomi aadama bëri na rawatina tamit ñi ci am ay jàngoro ba tax na rek fi mu nekk nii nguur dafa mel ni kii dafa samp si ñaari tànk tànk bu nekk am musique bi muy fecc waaye musique googule muy ñaar yëpp ñëw nañu ruube làmb ji ndaxte làmb ji waroon am ci dimanche bii nga xamante waroon nañ ko tëgg ci national arène nationale la ak Marley euh, kii di mobile 2 war ci dajeek ak buur siin te rent Dakar tëggoon ko Pape doomu Pikine bi nekkoon coordonnateur bi gannaaw ba mu demee bëgg a organiser làmbam ñu ne ko service door amul maanaam ay takk der amuñu mu mel ni kii bataaxal bi wala boog ndigal gi dafa bàyyi ko ci gouverneur bu ndakaaru moom daal joxe ndigal ne amatul benn làmb bu ñuy tëgg ndaxte service d'ordre amul actuellement moo tax ba làmb yooyu nga waroon am démb ci dimanche bi arène nationale ak fii nga xam moom mooy stade Jom Iba Mar lépp ñu daal di koy annuler waa léegi jafe-jafe yooyu nga xamante ni promoteur bi am na ko rawatina tamit ak mbër yi léegi naka la ñuy def pour mën a fay lu ni mel ndaxte à vingt quatre heures du combat am na mbër yu bëri yoo xamante sax ñoom yëguñu woon ne bés boobu dañ ko daal di dàkk fi mu nekk nii xel mi ngi ñaar ndegam 31 bii di ñëw Balla Gaye Bombardier dana amam déet dégg nañ promoteur li mu ci wax semi huis clos lay def 5000 places lay def ak pay-per-view waa làmb jooju bu fekkee ne dafa war a am est-ce que yoon la làmb yi waroon am week-end yi ñu dàq ko wala boog est-ce que yoon la Pape Abdou Fall làmbam ñu war ko dàq dañ ko war a tëgg ndaxte 31 le premier ak le 7 ak le 8 loolu yëpp ay datu combat te mois d'août bi la làmb ji war a jeex léegi nag bu fekkee ne dañu war a def ay mesures yoo xamante ni dafay génn ngir mën a xeex jàngoro bii di coronavirus te muy law ci biir réew mi. dañu war a arrêté lépp am déet parce que gis nañ fi ay concert yoo xamante ni euh, arrêté nañ ko waaye tamit li ñu gën a yéem mooy CNG lan mooy wàllam ci mbir mi la ndaxte nga gere làmb nekk njiit ba pare war a doxal war a joxe ay information yu leer ci promoteur beeg mbër yi waaye loolu yëpp amul est-ce que tey ki nga xamante ni moom mooy ki fi jóge yayul CNG bi fi nekk ak ak lu làmb moom mi nga xamante ni moo fi nekkoon euh, président CNG waaye tamit lépp loo xam ne nag waroon na xew mënoon nañ bind bataaxal euh, ñii di promoteurs yi ak mbër yeeg rawatina seen i manager pour yëgal leen bile xibaar léegi daal la ñuy xaar mooy tey jile ci xibaar Pape Abdou Fall ak mboolem promoteur yi mu jiite am nañu ndaje ak gouverneur bu Ndakaaru léegi nag dañuy xaar fii ngoon gouverneur lan la leen wax lan la ñu war a def bés yi di ñëw nañu xaar ñu déglu waaye daal loo ci mënti dégg daal ñaari musique yii di tëgg kenn mënu koo danse léegi nag nañu tëgg benn musique ñëpp xam fi ñu féete ndaxte làmb ji dafa bokk ci réew mi